abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngi balu ñépp xaq di baal ñépp di ñaan yàlla subhaanahu wa mu boole ñu baal di am mbégte di fas yéene àndati ak yéen ci seen jotaayu koor seen jotaayu koor tey nag dañoo fas yéene dajale ay àtte yu am solo yu aju ci wàllu koor kon tey dal dañoo fas yéene jukki fas yéene dajale ay àtte yu ama am solo yu aju ci wàllu koor mu nekk àtte yoo xam ne yaakaar nañ ne képp kuy jullit àtte yooyu dina ko war a soxal rawatina nag jullit buy jéem a góorgóorlu ci koor gu tedd gi mbokk yi àtte yooyu dañu ko fas yéene tënk ci ngirum imaam Malik radiyallahu taala anhu imaam Malik mi nga xam ne moom lañ doon tudde imaamu daaril hijra li ko waral nag mooy booy seetlu ñi ëpp ci ñi dëkke ci réew mii di réewum Sénégal ñi ngi aju ñi ngi tënku ci ngirum imaam Malik waaw doonte am na ñeneen ñu tënku ñu aju ci yeneeni ngir waaye ñooñu nag xëy na ñu néew lañu ci ñi dëkke ci réew mii di Sénégal maanaam daal bu ma doon wax ay tubaab dama naan ñooñu minoritaire lañu fi waaye nekkuñu ñu majoritaire dañu fee néew donte ñooñu nag dinañ leen suuraale ci yeneeni waxtaan inchaa allahu rabbi mbokk yi waxtaan wi dañu ko fas yéene tënk ci juróomi tomb juróomi tomb nag mooy cinq points dañu ko fas yéene tënk ci juróomi tomb muy cinq points tomb bu njëkk bi muy premier point bi mooy taarifu sawmi wa anwaau taarifu sawmi wa anwaau waaw muy dañ ci xamle lan mooy koor ak ñaata façon koor ñoo am loolu mooy tomb bu njëkk bi muy premier point bi dinañ ci xamle lan mooy koor ak ñaata façon koor ñoo am mbokk yi ñaareelu tomb bi ta mooy deuxième point bi day jëm ci suruutu sow mi muy charti koor charti koor loolu mooy ñaareelu tomb bi wala deuxième point bi euh, ñetteelu tomb bi muy troisième point bi danañ ci leeral arkaanu sow mi arkaanu sow mi te mooy ponki koor ponki xam naa mooy war a tolloog farata yi rek waaw ñeenteelu tomb bi te mooy quatrième point bi day jëm ci man duubaatu sow mi man duubaatu sow mi te mooy yi ñu sopp ci yi ñu sopp ci koor xam naa day tolloog ngëneeli koor waaw loolu mooy doon ñeenteelu tomb bi wala quatrième point bi mbokk yi juróomeelu tomb bi wala cinquième point bi day jëm ci makruhaatu sawmi makruhaatu sawmi muy yi ñu sib ci koor yi ñu sib ci koor waaw kooku mooy euh, juróomeelu tomb bi wala cinquième et dernier point mbokk yi kon yii mooy juróomi tomb wala cinq point yi nga xam ne ci lañu fas yéene tënk suñu waxtaanu tey wi mbokk yi kon dañu daldi sóobu ci waxtaan wi incha allahu rabbi fas yéenee dugg ci tomb bu njëkk bi te premier point bi jëm ci xamle koor ak ñaata façon koor moo am jëm ci xamle koor xamle nag mooy définition définition kon dañuy fas yéenee définir koor xamle mooy lan ci ni ko ngirum imaam Malik jàngalee te defe naa définition bi nga xam ne sax moom lañuy joxe ci koor ci wàllu ngirum imaam Malik defe na façon biñ ko définire wala anam giñ ko xamlee ci même anam googu ci même façon bi rek lañ koy xamlee ci yeneen ngir yi waaw te mooy dañuy wax ne alsawmu fi l istilaaxi inda al imsaaku an al farji fi jamiici ajzaa'i nahaari min tuluuci alfajri ila gurubi shamsi bi niyyati taqarrubi ila allahi taala bu ñuy xamle koor koor mooy lan waaw koor lan lay wundu li ñu tuddee le le le jeûne muy wala woor woor mooy lan woor ni ñu ko xamlee ni ñu koy xamlee ni ñu koy définir ci ngirum imam Malik mooy kiy woor day moytu lekk moytu naan moytu sëy ci bëccëg gi te mooy li ko dale fi fajar si xare ba ba jant bi so te la mu cay jublu muy intention bam mu cee am objectif ba mu cee am mooy lan mooy jaamu yàlla ci ngirum imaam Malik nii la xamle koor te defe naa ne ci yeneen ngir yi sax nag euh, noonu lañuy xamle koor itam ci yeneen ngir yi ni ñu xamlee koor ci ngirum imaam Malik noonu lañ ko xamlee ci yeneen ngir yépp rek waaw buñ ne woor woor diw de dafa woor wala man de dama woor waa woor googu lu muy wundu lu muy tekki li muy wundu daal mooy kiy woor na fexe ba tere boppam lekk tere boppam naan tere boppam lépp luy bànneexu sëy ci bëccëg gi yépp te li ko dalee fi fajar si xare li commencé fi fajar xare ba ba jant bi so te yéene ji koy lal mooy jaamu yàlla kon ki bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi say te amul intention wu jaamu yàlla xiifal la waaye kenn du ko tudde sax kenn du ko tudde woor kon defe naa définition boobu bu ma leer na ñu ñëw ci ñaata façon koor a am waaw ñaata façon koor moo am mbokk yi koor ni ko boroom xam-xam yi séddalee dafa am ay xeeti koor rawatina ci ngirum imaam Malik am na siyaam waajib mooy koor goo xam ne dafa war dafa war mooy farata la koor gi war mooy kooru ramadaan muy weeru koor fanweeri fani koor wala ñaar fukki fanam ak juróom ñeent woor ko moom dafa war waaw am na woor goo xam ne siyaam sunala am na siyaamu sunnatin maanaam koor goo xam ne kooru sunna la bari na nag bari na ay façon bari na ay xeeti kori sunna waaye mën nañ cee joxe benn misaal rek lu mel ne woor fukki fukkeelu fan ci weeru tamxarit wor fukkeelu fan ci weeru tamxarit kooku kooru sunna la muy li ngeen di tuddee yawmu ashura bésu muy bésu fukkeel bi ci weeru tamxarit dixième jour bi ci weeru tamxarit ñenn ñi di ko wax yow ma ashura ñenn ñi di ko tuddee tam ñarit waaw koor googu sunna la du moom dong nag mooy kooru sunna waaye koori sunna yi bari na waaye mën nañoo yem ci moom rek joxe ko comme comme misaal comme exemple mbokk yi am na siyaamun mustahab muy koor goo xam ne dañu ko sopp dañu ko sopp muy def gee gën waaye ku bàyyi itam dara nekku ci te mooy woor ci weer yi ñu wormaal yi waaw nekkul ne moom dong nag mooy koor gi ñu sopp waaye dama ci yem rek joxe ko comme misaal dama ci yem joxe ko comme misaal rek waaw am na koor gu ñu sopp koor yi ñu sopp nag bari na waaye mën nañoo yem ci genn rek cité ko comme exemple joxe ko comme misaal te mooy woor ay fan ci weer yu ñu wormaal am na yu ñu tuddee al ashurul al ashurul xurum te mooy weer yi yàlla di junju naan inna iddata shuhuri inda allahi ithna ashara shahran fi kitaabillah yowma xalaqa alsamawati wal ardo minha arbaatun xurum weer yu ñu wormaal yi la te dul qaada mooy diggu tabaski mooy weer wi jiitu tabaski nga xam ne bu jeexee rek tabaski da tabaski daa di ñëw bu jeexee rek tabaskee ciy topp ak dul xijja muy weeru tabaski ci boppam ak muharram muy weeru tamxarit ak rajab muy weeru ndayi ñeenti weer yi ñoom la tuddee weer yu ñu wormaal yi les mois saints ñeenti weer yi nag weer wu ci nekk nga tànn ci ay fan nga tànn ci ay fan woor leen loola koor gu ñu sopp la kon loola doy na misaal ci bu ñu bëggee jàngale bu ñu bëggee leeral woor yi ñu sopp donte am na yeneen waaye bu doyloo ci yooyu rek i ci des xel a koy mottali am na suyaamu naafila muy koorug naafila te mooy koor goo xam ne nit kee coobarewu di ko wor rek waaye wékku ko aju ko aju ko ci benn sabab ci sababu diine yi maanaam du mën a wax ne bis bii kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko daan wala dadaan sant soxaaba yi ñu woor ke wala da cee digee tuyaaba ju wala yu mel noonu déet waaye yow yaa toog ba am envie woor rek nga ne naa woor bis bii kooku koor naafila lay doon am na koor goo xam ne dafa xaraam ah koor gu araam waaw nga xam ne ku ko woor itam doo ci jële tuyaaba bàkkaar dong nga ciy jële te mooy woor bisu korite wala bisu tabaski bésu korite wala bësu tabaski rawatina nag commencement wu bisu korite ndax bisu korite moom comme dangaa jóge ci woor dañoo bëgg saa yoo xëyee rek nga gaaw ndékki ngir wane ne bésu tay bii kat bokkul ci bis yi war a woor donte nag bu dee bésu tabaski la moom dañoo bëgg nga xëyaale koor gu ndaw boo xëyee bul lekk bul naan nga xaar ba julli ji ba ñëw ba ñu rendi xar mi ba fees ko ba waaj ba waaj ji res wi ba waaj ji res wi nga dogo ci res wi nga doge ko koor gu ndaw googu waaye li des ci bisu tabaski bi nag doo ko woor waaye daal bisu korite gi yépp nga woor ko wala bisu tabaski nga woor lépp loola dama wax ne koor gu xaraam la koor gu xaraam la waaw am na siyaamun makruh muy koor goo xam ne dañu ko sib te mooy nit ki di woor rekk bañ a jëllal àddunaam si yépp mu koy woor ah woor weeru korite weeru digg wi weeru tabaski weeru tamxarit ah weeru digg bu ñaareel bi weeru gàmm rakk ji gàmm ba weer yépp mat ah loola moom dañu ko sip muy lan bàkkaar nekku ci de waaye itam tuyaaba nekku ci te bañoon gee def sax moo ëpp tuyaaba def gi mbokk yi kon defe naa ne leeral nañ euh, tomb bu njëkk bi kon muy xamle koor xamle lan mooy koor koor lan lay wund ak ñaata façon koor moo am koor dal ci gàttal li muy wund mooy ki bëgga a woor day xañ boppam bànneexu lekk ak bànneexu naan ak bànneex yi aju ci sëy li ko dale fi fajar ci xare ba ba jant bi so te yéene ji koy lal lam cey jublu mooy jaamu yàlla lii rek mooy définition koor koor nag Euh, dafa am ay façon ay xeeti koor yu bëri te bokkul wala façon yi koor wala catégorie koor yu bokkul koor dañ koo catégoriser am na koor gu war am na koor goo xam ne sunna la am na koor gu ñu sopp am na koor gu naafila am na koor gu araam am koor gu ñu sib te yépp leeraloon nañ ko mbokk yi ñu ñëw ci suñu ñaareelu tomb bi te mooy charti koor te mooy charti koor charti koor nag dafa séddali ay xaaj muy lan am na shurutul wujubi am shurutu sixa am na charte yoo xam ne waru koor gi moo ci aju am na charte yoo xam ne balaa kenn balaa koor di war kenn sartu yooyu day daje am charte yoo xam ne nag wéru koor gi moo ci aju nga xam ne balaa kooru kenn na wér charte yooyu da cay daje mbokk yi même charte yooyu dafa am nuñ koy leerale dafa am ay détails muy am na loo xam ne surutul wujub rek la am yoo xam ne surutu sixa rek la am surutul wujubi wa sixa am na charte yoo xam ne waru koor gi rek moo ci aju nga xam ne balaa koor a war kenn charte yooyu day daje ci moom am charte yoo xam ne wéru koor gi rek a ci aju nga xam ne balaa kooru kenn mën a wér faaw charte yooyu daje ci moom am charte yoo xam ne nag ñaar yëpp a caaju muy waru koor geeg wéru koor gi moo caaju nga xam ne balaa kooru kenn di war wala muy wér charte yooyu day day daje ci moom nga xam ne charte yooyu moom bu amul koor du war du wér mbokk yi yëpp dinañ ko leeral incha allah rabbi ñu njëkk ci churutul euh, wujubi muy charte yi nga xam ne waru koor gi rek moo caaju nga xam ne balaa koor a war kenn charte yooyu daje daje ci moom charte yooyu bi ci njëkk mooy al buluuxu muy faawu nit ki doon mukallaf faawu nit ki nekk ku majeur ku majeur waaye mineur koor warul ci moom kon xale bi nga xam ne majeur agul kooku koor warul ci moom warul ci moom waaw. Euh, bokk na ci sart yi tax itam e, bokk na ci sart yi tax koor war kàttan kàttan waaw defe naa ne léeg nga dégg ñu naan koor kàttan noddu fit noddu fa nga ñeme koor kàttan noddu fa nga ñeme kon bokk na ci sart yi tax koor war faw waa ji am kàttanu woor kàttanu woor kon lañ cay dégg mooy ki feebar feebar bu méttee méttee métti ba lompañ kooku kat koor warut ci moom ki tollu diggante ba grossesse bi ëmb bi àndut ak koor mayu ko mu am kàttanu koor kooku itam koor warut ci moom kii nàmpal itam nga xam ne su wooree mën naa am mu néew doole wala du am soow mu doy kooku itam koor warut ci moom waaw bokk na ci yi tax koor war nit ki itam dangay nekk fi nga dëkk waaye ki tukki jóge ci dëkk dem ca beneen dëkk jóge tàmba dem maatam wala mu jege Ndar dem Ndakaaru wala mu jóge Ndakaaru dem Tuuba ah kooku nga xam ne dafa tukki te charte wàññi julli charte yi daje ci tukki ki tukki mën a wàññi julli charte yooyu daje ci tukki bi kooka koor warut ci moom koor warut ci moom waaw donte su itam dana wér donte su wooree dana wér waaye koor warut ci moom kon koor daal euh, euh, charte yi tax mu war mooy yi ci gàttal faaw kiy woor day nekk ko majeur gone xale bi majeuragul koor waru ko faaw itam balaa nit kee woor day am kàttan kon ki feebar feebar bu àndut ta koor wala mu ëmb ba tollu diggante mu ëmb muy ko tollu diggante rek ba néew doole wala muy nàmpal ba néew doole kooku itam koor waru ko wala sax bi kii nàmpal néewut doole waaye bu wooree euh, xale bi muy nàmpal du am soow mu doy mu mu mën a nàmp koor waru ko ak kan kii tukki tukki boo xam ne sarti wàññi julli daje ci moom kooku itam koor waru ko teewul nag ñoom ñëpp ku ci woor sa woor mën na wér mbokk yi ñu ñëw ci suruutu sixati muy sart yi nga xam ne wérug koor gi moo ci aju balaa kooru kenn wér valable sart yi day ci ci moom bi ci njëkk mooy al islaamu maanaam balaa koora wér ci kenn dangay nekkub jullit ba noppi kon ki nekkul ab jullit ab yéefar bu wooree kooram wérut muy benn ñaareel bi mooy azzamaanu muy lan dangay woor ci jamono ji ñu war a woore jamono ji nga xam ne koor a ko tax a jóg waaw waaye képp ku woor ci jamono joo xam ne contexte boo xam ne fan yoo xam ne woor ca dafa xaraam kooka ak kooram wérut wérut lu mel ne kii woor bésu tabaski wala bésu korite kooka wooram wérul ndax lan daa wóorewul ci jamono jiñ war a woore daa fekk jamono joo xam ne kenn waru caa woor mu cay wor ndax bésu korite ak tabaski dañuy tere ku ca woor kon ñaar yi ñooy charte yi tax kooru wir nga xam ne wéru koor gi rek rek moo caaju waaw ku duggul ci lislaam kooka ak wooram wérut ab yéefër kuy woor ci jamono joo xam ne kenn waru caa woor kenn santaane wu ca woor bal sax dañ fay tere ko ca woor kooka kooram wérut ci misaal kiy woor tabaski wala korite mhm. mbokk yi ma ci surutul wujubi wa sixa muy charte yi nga xam ne nag ñaar yëpp a caaju muy waru kor gi ak wéru koor gi war ak wér mbokk yi charte yooyu bi ci njëkk mooy xel waaw kon bala kooru kenn war balaa koor a war ci kenn wala muy wér ci kenn dangay amum xel waaye ki nga xam ne dafa wéradi wéradi xel wala mu xëm ba tàggook sagoom ñaar ñi koor waru leen te itam seenu woor wérut koor warul ci ñoom wérul ci ñoom ñaar yëpp a daje ki àndut ak xelam nga xam ne dafa wéradi wéradi xel wala muy xëm ba tàggook xelam dama ne koor warul ci moom wérut ci moom kenn santu ko ko tax su wooree itam du ca jëlee dara waaw waaye nag ki wére di wére di xel bu demee ba wér xelam ñëwaat wala ki xamoon ximbaliku su boobaa nag ci la woor di soog a waree ci ñoom mbokk yi bokk na ci charte yi nga xam ne waru koor géeg wéru koor gi da ci aju mooy bu dee jigéen la day set ci dereeti dereeti règle muy mbaax ak dereeti wasin waaye jigéen gi nga xam ne dafa toll ci gis mbaax mi ngi toll ci période bi muy gisee mbaaxam wala mu gis dereti wasin kooku dey koor warul ci moom te wérul ci moom muy kenn sant ko ko te su ko defee itam du wér du ci jële dara waaye nag su fekkee jigéen gi dafa gisoon mbaax wala mu gis dereti wasin ci jamonoy koor jamonoy weeru ramadan yàlla dogal dereti règle ja arrêté dereti mbaax ja wala dereti wasin ji arrêté laata laata fajar di jot lu jiitu fajar di jot su boobaa nag woor day daal di war day daal di war ci jigéen jooju day daal di war ci jigéen jooju jigéen ji gis dereti mbaax wala dereti wasin ba islaam teggil teggil ko woor ba yeneen jamono dama wax ne bu dereti mbaaxam arrêté arrêté mu dagg-dagg gu leer naññi set set gu wala dereti wasitam dereti wasinam arrêté muy muy mu set set gu leer naññ lu jiitu fajar di xar avant fajar si xar su boobaa woor day war ci jigéen jooju day war ci jigéen jooju nga xam ne deretam set na set gu leer naññ waaye su fekkee nag day sikki sàkk ba xam set na wala setul maanaam daal am na jigéen gi dafa yore woon dereti mbaax wala dereti wasin bañ teggandil ko koor laata fajar di xar nag mu gis màndarga moo xam ne daal day werante day xel ñaar di dute di sikki sàkka naan waa man sama dereeti mbaax ji ndax sedd na wala setul sama règle bi ndax sedd na wala setul wala sama dereetu wasin ji ndax sedd na wala setul kooka islaam dane ko bis boobu de na nga woor na nga téye sa bopp bul lekk bul naan dawal bànneexu sëy ba jant bi soo waaye nag bu koor gi jeexee bis boobu da koy fay ndax bisub sikki sàkka nga woor bisub sikki nga woor moo tax waaw euh, mbokk yi bokk na ci charte yi nga xam ne wéru koor geeg waru koor gi yëpp caaju mooy fàww waxtu wi ñu war a woor waxtu wiñ santaane ku ca woor day jot kon koor ga dang koy amale ci waxtu wi ñu santaane ku woor waxtu wiñ santaane ñu woor ca waaw waaye euh, yow mi nga xam ne danga ne dangay woor woorug Ramadan muy woorug koor gu mag gi taamoo benn firnde benn preuve buy wane ne weer wi dugg na weeru koor gi dugg na su boobaa yow li ngay woor waru la te wérut ndax kat woorug Ramadan bala moo war ci kenn faaw dangay gisal sa bopp weer wi mu leer la ne weeru Ramadan weeru koor feeñ na wala boo ko gisalul sa bopp ñu gisal la ko kenn ko maandu wala ñaar ñu maandu wala mbooloo mu bari waaw kay waaye yow nga jékki-jékki rek gisoo weer gisaluñ la weer nga ne damay woor ñu ne la looy woral nga ne xanaa ramadan weeru koor yaa ngi yàq sa temps de yaa ngi yàq sa énergie ndax yaa ngi wooral loo xam ne waru la te itam wérut kon charte yi nga xam ne weru weru koor geeg weru koor gi da ci yaaju kon noppi nañ ci matal nañ ko mbokk yi ñu ñëw ci suñu ñetteelu tomb muy troisième point te mooy ponki koor mbokk ponki koor mooy tollook faratay koor mbokk koor am na ñaari farata ñaari farata ah waaw farata bu njëkk bi mooy yéene mooy yéene yéene nag xol a koy def dangay fas yéene ki sa xol ne fas yéene naa woor weer wi yépp ci misaal tey bu weeru koor feeñee guddi googu laata ñuy xëy suba di dugg ci fan bu njëkk ci weeru koor mën nga ne fas yéene na woor weer wi yépp waaw kon yéene dañ koy fanaanoo dañ koy fanaanoo waaw kañ lañ koy def laata fajar di jot kon yéene day jiitu fajar avant fajar di jot lañuy ñuy waaye boo bàyyee ba fajar weesu nga soog di yéene ah jàppal ne dangaa xiifal de wala nga maral waaye sa koor googu wérut waaw te itam yéene ji danga koy leeral dangay leerali koor gi ko tax a jóg maanaam danga koy préciser bu dee weeru koor ko moom nga ne fas yéene na maa war weeru koor gi yëpp waaw bu dee da ngay fay nga ne fas yéene naa fay sama bor yi bu dee da ngay naafila nga ne fas yéene naa koor koorug naafila wala yu mel noonu il faut nga leeral ko waaw kon jenn yéene rek doy na bépp koor goo xam ne dañ ko war a sësale comme lu mel ne ki euh, Ramadan xam nga weeru koor moom fanweeri fan yu ñuy sësale la wala ñaar fukk ak juróom-ñeenti fan yu ñuy sësale ca fan bu njëkk ba muy ba weer wa feeñee rek boo yéenee laata fajar di jot nga ne fas yéene naa woor weer wi yépp doy na la jarul nga koy baamtu di ko répété ko répété waat ceneen jour yi waaw nekk fa naan deuxième jour bi nga naan fa yéene maa war troisième jour bi wala fa yéene maa war quatrième jour bi jaru ko ci moom daal ba weer wa feeñee fexeel ba am far farlu gu toll ne laata fajar di jot nga ne fas yéene ne maa woor koor gi yëpp jéene yéene jooju doy na ak baneen woor guñ war a sësale rek tey boo amoon euh, ay fan yoo nisér nga ne man kat nisér naa boo niséree mooy nga jël engagement sa digganteeg yàlla ne ah man de fas yéene naa wor juróomi fan wala fukki fan wala vingt jours xam nga fan yooyu nga woor ko day war ci yow sësale ko itam day war fan yooyu nga tànn nag ne fas yéene naa ko woral yàlla sësale ko nga jël engagement bi ba pare kooku soo koy woor bala ngaa commencé boo nee suba ngay door laata fajar di jot nga ne fas yéene na ma woor juróomi fan yépp wala fukki fan yépp wala ñaar fukki fan yépp jenn yéen jooju rek yóbbaale ne juróomi fan ya yépp wala fukki fan yépp wala ñaar fukki fan yépp loolu jara leeral la kon mbokk yi loolu mooy farata bu njëkk bi te mooy yéene yéene farata ñaareel bi mooy nga téye sa bopp ba doo def lenn luy dog muy doo lekk doo naan doo provoquer ay wàccu wala doo def lenn luy dokkoor doo sëy jigéen li ko dale fi fajar si xare ba jant bi so kooku mooy ñaareelu farata bi moytu luy dog muy lekk wala naan wala provoquer ay wacc wala sëy jigéen wala jigéen nga itam di sëy ak góor sëy rek en tant que tel li ko dale fi fajar si xare ba jant bi so kon ñaari farata la koor am koor ñaari farata doo nga am bi ci njëkk mooy yéene bu ñaareel bi mooy lan moytu ak di daw lépp luy dog koor kon mbokk yi loolu moom yomb naa lijjanti kon ñu ñëw nag ci yi ñu sopp ci koor yi ñu sopp ci koor nag ki ngir imaam Malik nga xam ne mën naa taxaw taxawaayu na yi rek moom daal bari lool waaw bi ci njëkk mooy bis bu ñuy sikki sàkk mooy lan démb la woon séntu bu njëkk waaye nag amoo benn information bu lay prouver ne weer wi feeñ na wala feeñul moom daal xam nga ne daal démb la woon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru baraxlu muy Shaaban moo doonoon séntu bu njëkk waaye gisoo weer wi waaye nag wóoru la ba feeñ naam feeñul bis boobu la ñu tuddee yow mu sakk muy bisu sikki sàkk bis bu ñuy werante di xel ñaar ndax ci koor la bokk wala bokku ci ci ramadan la bokk wala bokku ci bis boobu sopp nañ ci jullit bi mu woor ko sopp nañ ci julit bi mu woor ko muy lan mu téye boppam bañ lekk bañ a naan rek waaw waaye nag ci cadre sopp nañ mu woor ko ngir maal ko waaye du ko woor nag ngir naan waaw damay woor di tenter chance su fekkee weer wi feeñoon na ma am tuyaabay ku woor mu dugg ci ramadaan bi bu feeñut nag mu am ma am tuyaabay ku naafila boo ko dugalee ci cadre boobu moom su boobaa def def nga lu ñu sib def nga lu ñu sib kon bisub sikki sàkka muy lan démb doon séntu weer wi séntu bu njëkk ba xam feeñ na wala feeñul amoo ci loola leer yaa ngi ciy dutee bis boobu daal mën ngaa téye sa bopp ngir ngir maal bis bi pour en su fekkee weer wi feeñoon na nga maal bis bi waaye soo ko dugalee ci cadre naan ah am na nu muy weer wi feeñoo na démb de kon naa woor su fekkee weer wi feeñoo na démb ma am tuyaabay ku woor wooru bu feeñutoon ma am tuyaabay naafila soo ko dugalee ci cadre boobu def nga lu ñu sib waaw mbokk yi bokk na ci koor yi ñu sopp mooy. Euh, euh, al islaamu fi ramadaana bi waqti nahaari yundabu an yamsaka anil muftiraati maanaam ki dugg ci islam ci bëccëgug weeru koor moom ab yéefar la woon waaye nag mu dem ba islaam convaincre ko mu day tuub te ci bëccëgug weeru koor la tuube nga xam ne waxtu wiñ war a yéene moom weesu na ci moom kooka nag doonte wutoon donte ñu ngi ci diggu bëccëg gi bu xasee ba tuub rek dañoo sopp ci moom mu téye boppam nag li des ci bëccëg gi bañ cee lekk bañ cee naan moytu lépp luy dog ba fa ba keroog jant bi so ba keroog jant bi so ngir wormaal woor gi wala wormaal weeru koor wu kon ki nga xam ne dafa nekkoon yéefar mu dugg ci lislaam ci bëccëgu weeru koor li des bëccëg gi sopp nañ ci moom waxuma dafa war de sopp nañ ci moom bu ko mënee def moo gën bu ko deful dara nekku ci waaye def gi ëpp tuyaaba de sopp nañ ci moom mu téye boppam bañ a lekk bañ naan moytu mbooleem lii dog koor ba keroog jant bay so mbokk yi bokk na ci yi ñu sopp ci koor euh, ki nga xam ne dafa ame ay bor buy fay bor yi na ko sësale maanaam yow amoon nga ci koor gële jàll cinq jours juróomi fan yoo wóorutoon boo koy fay bul fa nekk naan danga koy jéema danga koy jéema espacé maanaam woor tey daal di noppalu ñaari fan wooraat beneen fan noppalu ñetti fan wooraat noppalu ñeenti fan wooraat noppalu juróomi fan wooraat loola gënul nanga ko sësale rek nanga ko toftale ki ay bor bu koy fay na ko sësale na ko toftale moo gën kooku dañ koo sopp tekkiwul ne nag su ko toftalewul baaxul de su ko toftalewul baax na waaye toftale gi sësale gi dafa gën rek mbokk yi bokk na ci yi ñu sopp ci koor nga xam ne ci sunna yi lay dugg rek mooy ki woor na sàmm làmmiñam nag na sàmm làmmiñam sàmm ay cëram làmmiñ yi bum ci wax waxu sàggan waxu waxu mbóosóor muy des paroles indécentes waxi lu jëm ci wàllu sëy waxu mbëggeelak waxu jigéen na sàmm itam ay cëram ay cëram bu mu sàcc lu moomul ci loxo bi bu mu xool lu xaraam ci bët yi bu mu dox ci ay tànkam maanaam siqi ay jéego di dox jëm ci lu xaraam jëm ci fu ñuy carte fu ñuy damyee fu ñuy sabare loolu da koy moytu waaw waaye nit kii dafa woor te moo fi dàq saaga moo fi dàq xuloo loolu gënul di ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na boo wooree buñ la xasee wala ñu ŋàññeel wala ñu saaga la na nga tontu ki ki la xas wala mu ŋàññeel wala saaga la ne ko man dey buggumaa yàq sama tuyaabay koor te koor àndut ak jara bàyyi xel la kon wooral sa làmmiñ wooral say bul ca génne kàdduy xuloo wala xasante wala saagante cër bu ca def benn bàkkaar bul lor kenn yi ci koor la bokk ci yi ñu sopp ci koor la bokk mbokk yi bokk na ci sunnay koor gaaw a dog gaaw a dog nag waxuñu nga ngay dog fekk jant baa ngi ne dàng loolu moom ay caaxaan la waaye da ngay xaar ba jant bi so bu jant bi sooyee bu ca teg dara gaawal daal di dog waaye ñu bëree bëri bu jant bi sooyee ñu naan dégg ma nodd gi waaye loolu nag defe naa léegi mi ngi commencé wàññeeku ndax léegi moom waaraatekat yi bëri na waaye bu njëkk laa ilaha illallah da daan gis jant bi so nga gis ku fa nekk toogaat fa luy bëgg a mat dix minutes wala quinze minutes ma leen waaw yéen lu ngi di xaar nii ñu ne nodd gi la ñuy xaar xanaa yéen da ngeen a xamul ne kii nodd moom day dog ba noppi soo a nodd nodd xamle waxtu wu dog taxu koo jóg nodd li ko tax a jóg mooy xamle waxtu julli waxtu timis jot na waaye léegi nag ñu bëri ñu ngi ciy yeewu waaw ndax saa yoo yeexee dog rek jant bi soo nga naan damay déglu noddkat bi su boobaa bàyyi nga sunna di heureusement nag dee leen wut calendrier yi xamle waxtuy dog yeeg waxtuy jàpp yi yaatu na lool région bu ne seeni horaire am na région bu ne am nañ seen calendrier bopp kon gaaw dog bu jant bi sowee bu ca teg dara nga gaaw a dog booy dog yi itam na nga dogoo tàndarma ju ju ju ju ju ju ju tooy wala ju wow tàndarma ju tooy nag moo gën boo ko amul nga dogo tàndarma ju wow te mu nekk lu tóol waaw ñetti tàndarma wala juróom wala juróom-ñaar yu mel noonu waaw kon gaaw a dog ci ngëneeli koor la bokk waaye itam dogoo tàndarma boo ko amee moo gën boo ko amul nanga nga dogoo ndox rek ndox léeg am na ñuy naan ay café yooyu ba léegi baax na café wala meew wala attaayo yooyu mbokk yi bokk na ci ñu sopp ci koor yéex a xëdd kooku sunna la yéex a xëdd mooy lan Euh, booy xëdd daal waxtu wi ngay xëdd na jege fajar waaye bu mu ko sori ba mu ëpp maanaam daal booy xëdd na nga xëdd lu romb xaaju guddi lu romb minuit ay une heure du matin deux heures du matin ba trois heures du matin ak yooyu waaye di xëdd daal ay vingt deux heures ak ay vingt une heures yooyu moom baaxul ndax dañoo bëgg xëdd gi am barke te lu jege fajar moo ëpp barke dañu bëgg itam xëdd bi xaw laa téye tuuti te bu gënee jege fajar ci la lay gën a mën a tëye waaw te itam dañuy bëgg itam nga sa koor kooruk jullit mën a wuute mën a woroo am lu ko différencier ak kooru yéefar yi ndax ñi dul jullit seenu woor amul xëdd moo tax léeg-léeg nga dégg koo xam ne daan hé man xëdd duma ci jaar nga ne ko lu tax mu ne man mënumaa yeewu buñ la doon jox ay millions de da nga yeewu bu doon boo yeewoo am dix mille da nga yeewu de wala wala nga gis koo xam ne daan man mënumaa lekk fajar mais bu dee benn tàndarma la sax xëdde ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne xarru walaw bi shiqqi tamratin na ngeen xëdd doonte benn xaru tàndarma la benn xaaju tàndarma benn moitié tàndarma waaw am na fu mu ne xëdd leen donte guuxum ndox la boo munta lekk ceeb wala fonde wala njurni wala càkkri munoo lekk tàndarma mais xanaa man ngaa naan ndox nag kon nga xëdde ndox na serait-ce rek pour sa koor am lu ko wuutee am lu ko différencier ak kooru yéefar yi loolu lu jar a bàyyi xel la euh, mbokk yi bokk na ci yi ñu sopp ci koor del dundal koor gi nag ci lu mel ni ki jàng alquran tudd yàlla di jéggalu ak di def ay jaamu yàlla di tabe di saraxe di dimbulee di jokk mbokk di omat silmaxa yi di toppale yi gaañe ci mbedd yi yooyu yépp yu baax la loo daan def ci lu baax ci budul koor bu koor jotee nanga ko nanga ko yokk mbokk kon loolu mooy tomb ñeenteel bi muy yi nga xam ne moom lañu sopp ci koor ma ñëw ci tomb bu mujj bi muy tomb juróomeel bi muy yi ñu sib ci koor yi ñu sib ci koor waaw mbokk yi ñu sib ci koor mat na fukki mbir bari na lool mat na fukki mbir am na ñoo xam ne buñ koy lim mën na ëpp fukki mbir yi am na ñoo xam ne mën na koy yées ça dépend rek ci jàngalekat yi waaye daal Euh, mat na fukki mbir daal yoo xam ne gënul def ko ci koor waxuma da yàq koor de waaye bañ gaa def moo gën bañ gaa def mu ëpp tuyaaba def gi mbokk yi bi ci njëkk mooy euh, di mos dara ndax saf na xorom wala saf na suukar di ko sex ak a yàbbiwaat idxaalu ayi shay'in ilal fami aw tadawuqu cheyin li macrifati xaalihi ka nisbati lmilxi fi taam mooy ngay seex dara di ko yàbbiwaat ngay seex dara di ko yàbbiwaat mu mel ne kom nit kiy togg bëgg a xam xorom si saf na wala déet wala sukkar si saf na wala déet mu daal di génne kuddu cin waar gi rek daal di taqal ci loxo mos yàbbiwaat yàqul koor de waaye sib nañ ko bañoon ngay def mu gën def gi muy benn ñaareel bi mooy di galax ndeeko galax ndikuwaat di galax ndikoo ka ndikuwaat am na xale yu ko tàmm bu koor jotee ñu yor seen setala di gujux gujuxi rek sex aka yàbbi sex aka yàbbi rek te am na nu demee am lu rëcc jàll ginnaaw nag dara mën na caa rëcc jàll wóorut bu dara dee rëcc jàll sax yow doo ko mën a téye doo ko tey te léeg-léeg seytaane da ciy laxasu ñu far ko daal di sib rek ne gënut waaw mbokk yi ñetteel bi ci ñu sib ci koor mooy yi jiitu wàllu sëy lu mel ni ki di laalanteeg jigéen wala jonjonteeg moom wala fóonanteeg moom ak yu mel noonu am na ku ciy faral di indi débat ngeen jéggal ñu nag waaw yooyu dañu dañu koo sib mbokk yi bokk na ci yi ñu sib ci koor nit ki di laal parfum wala muy fóon parfum ci diggu guddi gi waxuma nag day yàqu koor de mais dañu ko sib muy lan euh, bañoon koo def moo gën def gi waaye buñ demee ba dog jot nag guddi gi kum neex nga laal parfum kum neex nga fóon parfum waaye diggu ba bëccëg daal nga ci laal parfum di ci xeeñoo parfum ci koor ci diggu bëccëgu koor wala nga ko ciy fóon yàqul koor de araamul de waaye dañu ko sib bañoon gee def moo gën def gi mbokk yi bokk na ci yi ñu sib ci koor mooy ko woor di sarale woor di sarale mooy di woor continuellement loolu mooy lan mooy nga woor commencé fi fajar si xare ñu ne la bu jant bi sowee dogal jant bi so nga bañ a dog sarale ba ñaareelu fan ba woor ñaari fan yu sësaloo te dogoo ci diggante bi loola waxuma dafa araam di waaye dañu ko dañu koo sib bañoon koo def moo gën yonent bi sallallahu alayhi dong moom la ko yàlla mayoon moom day bu ko neexee mu woor ba ngoon jot jant bi so mu sarale woor jëmale suba waaw mbokk yi bokk na ci yi ñu sib ci euh, koor di galax ndiku galax ndiku bu ëpp wala sarax ndiku sarax ndiku bu ëpp kon booy jàpp fekk danga woor na daan sarax ndikoo bi nga wóorul du bokk ak ni ngay sarax ndikoo bi nga wooree na nga daan galax ndikoo bi nga wóorul du bokk ak ngay galax bi nga wooree ndax bi nga wóorul moom bu la neexee nga ëppal ci galax ndiku wala nga ëppal ci sarax ndiku waaye boo wooree galax ndikul galax ndiku bu yem sarax ndikul sarax ndiku bu yem bu ndox mi ëpp te bu mu jàll ba ca biir gémmiñ ga bu ndox mi ëpp ta bu mu jàll ba ca biir bakkan ba na yem rek mbokk yi bokk na ci yi ñu sib ci nit ki di soccoo bant bu tooy bant bu tooy kon socc ci koor dara nekku ci waaye na nga jël bant bu wow looloo tax sax boroom xam-xam yi dañ ne lu mel ni pat pâte dentifrice yi ku ko bëgg a jëfandikoo ci koor na nga xaar bañ ndogu ay timis wala gée nga jëfandikoo foofu wala buñ demee bay bëgg bay bëgg a jàpp maanaam avant fajar di jot waaye bu ko jëfandikoo ci bëccëgu koor ndax buy rëcc di jàll doo ko tey waaw kon loolu lu jar a bàyyi xel la mbokk yi bokk na ci yi ñu sib ci koor bëccëg gi yépp nga koy nelaw <laughs> nga koy nelaw waaye bëccëg gi man nga cee déglu jotaayu tafsir yi di du jàkk yeeg jumaa yi dañuy tafsir demal nga toog foofu di déglu alquran yi ñuy firi di ko leeral loolu tuyaaba la wala nga ubbi sa kaamil di jàng wala ngay wax laa ilaha illallah subhanallah alhamdulillah astaghfirullah defe naa yooyu mu ëpp tuyaaba waaye bëgg bëgg bëccëg gi gàtt tax nga dem fa sa ruq bu sedd sa néeg bu sedd sedd nga tëdd fa nelawa nelawa nelawa nelaw ba tàkkusaan jot nga yeewu tuuti nga cay te dog jot bu njëkk moom da daan tàng ba nga gis koo xam ne day tooyal ndox mi ne mbàpp ci bàq bi wala mu ne mbàpp ci ab ruumam léegi nag wàññeeku na moom waaye léegi nag yenn moyens moo bari nag waaw léegi développement moo àgg foofu daal technologique industriel voilà ventilo yeeg kilim yi yaatu lool moo tax léegi di tooyal bàq di ca tëddëg ne mbapp ci sa ruum léegi xewi na wala boog ñu bari bàyyi nañ ko waaye daal woor ba gi yëpp nga bëgg koo nelaw yow kañ ngay nelaw bu buñ demee ba dix heures jot rek tëdd nga jëmale nag di sept ci ngoon jëmale tàkkusaan ngir lan nga ne damay dàq damay damay dàq koor pour lan pour temps bi gaaw nga woor te doo ko yëg ne woon naa leen koor kenn du ko dàq waaye dañ koy dàq boo ko dàqee loo dàq kay day dem yow dàq dàq dàq nga ko noo koy dàq nga ko boog di moyes tuyaaba ja wàññeeku na noo koy dàqee ngelaw nelaw yu bëri nelaw yu bëri wala jàkkaarloog télé bi yor sa commande di zappe rek ay série ngay wër ay clip ngay wër ay match de football ngay wër quand di di distraire di divertisu di soulager wu sa tuyaaba day wàññeeku wala nooy dàqe koor wut lido gisoo bu koor di bëgg a ñëw lido yi ni muy jare ndax dañuy bëgg di toog ci jotaay fukki jigéen fukki góor téeméeri góor téeméeri jigéen ñuy lido rek ngir lan dañuy wéttilante su boobaa temps bi day gàtt ci ñoom danañ woor sa duñ ko yëg mais su boobaa dàq nañ seen tuyaaba wàññi nañ lu bari ki seen tuyaaba mu dem kon koor kenn du ko dàq waaye dañ koy dàq dàkkal mooy dañ koy exploiter da ngay exploiter ci context koor gi jëf ci loo xam ne ëllëg yomal xiyaam dina la jàllale jëf ci loo xam ne yàlla dina la ci gërëme am déet defe naa loolu moo gën de mbokk yu baax yi euh, bokk na ci yi ñu sib ci koor di woor ba noppi di wax waxu mbóosóor des paroles indécentes waxu saaga waxu xuloo waxu xasante wax lu jëm ci wàllu sëy waxu càggante yooyu daal moom vraiment ku woor du ko def ku wóoru sax du ko def rawatina na ku woor ak jëfu caaxaan yaa ngay bëreeg jigéen yaa ngay jonjoog ñoom wala ki woor ba noppi di sàcc ki woor ba noppi di jëw ki woor ba noppi di jël lu moomut ba noppi di seetaani sabar yooyu yépp gënut waaw kon mbokk yi xam naa ne yii daal dama ne woon naa ko dajale rek waxtaane ko mu doon atte yu tënku yu aju ci wàllu wàllu koor kon xam naa dinañ ci ñëwaat ci yeneeni anam ak yeneeni facette tey leen ñu bàyyi xel Euh, ñu leen di tàggoo fii di leen euh, ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yéen di bàyyi xel waxtaan yi di commenté ak di aimé ndax fi la njëriñ yee gën yaatoo jaa ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi